doo leen ko def may ñaan rek foofee nga xamante ne foofa laa soqee ko muy newraan a ah, dama bëgg rek ngeen daal di leen fa defal courant ndax nee naa la soxla nañu ko chaque année ngeen di leen ko dig rek te du ngeen ko def te nee naa la loolu ñaaw na waaye balaa ngay laax jaay nag dangay laax lekk nee naa la sama dëkk boobu nga xamante ne fa la sama cosaan nekk ma daal di fay soqeekoo ah nee naa la Dakar laa juddoo waaye foofu laa foowee fa laa màggee te nee naa la nit balaa ngay laax jaay dangay laax lekk te nee naa la boo nawee sa dëkk bëgg ko rek dang tey taxaw rek daal di leen jàppale kon damay ñaan ki nga xamante ne moo fa nekk njiit rek ah bëgg ñu jàppale ko rek moom tamit na jàppale boppam bu ko defee rek la mu waxanteeg ñoom rek mu daal di koy def comme courant la leen digg rek nañu leen indil courant bi ndax xale yi dañuy jàng te bu guddi gi jotee dañuy soxla courant pour mën a jàng seeni ay leçon ñi bëgg a def tailleur ñi ngi fa ak ñi bëgg a def ñi nga xamante ne dañuy def leneen ak leneen ñu ngi fa Euh, menuis métallique yaa ngi fa tamit te bu ñu amul courant yooyu yëpp duñ ko mën a def nee naa la courant dafa bokk ci réew kon nit bu fekkee da nga nekk góor pire boo diggee ay nit rek war nga koo mën a def ba nga xamante ne rek nit ña ñu nekk di la ngañ ak di la wax kii politiciens yi nag dañu tàmm bu élection jotee rek ñuy digaate te la ñuy digaate rek duñ ko def waaye dama bëgg rek ngeen sàmmante seen rek te daal di leen indil courant ndax ndax nee naa la newraan yàgg nañu ci lëndëm dañu dama bëgg nag ngeen daal di leen leeral rek Sénégal daal di jëm kanam ndax nee naa la man balaa maa laax jaay damay daa laax rek daa di lekk kon bëgg naa ngeen yóbbul ma courant bi foofee ca newraan rek sama xol daa di sedd rek daa di daal kon tey sama ay chroniqueur ci newraan la doon wax ma bëgg rek ngeen daal di may yóbbul courant bi foofu yéen ñi nga xamante ne yéen ay autorité yi sama vidéo tey ci lool la doon wax I love you thank you